ba nga ñëwee euh, ci euh, cabinet président euh, est-ce que nit ñi nit ñi xooluñu la bëtu xoola kii moo ñoo saaga démb tey ñëw na déedéet kenn siisu la fa déedéet loolu amul Aïssatou beneen benn affaire xam naa loolu dinañ ko wax peut-être si fin bi aussi si wàllu presse bi man li ma doon dégg présidence naan ay kii mi ngi dëmm kii mm. kii mi yooyu amul foofu man de ah. gisuma ko fa déedéet ñépp a jàmm liggéey. c'est le monde des man de gisuma fa. Hmm. ay galgal ay kii moo. ay Tunkara non Aïssatou déggoo li ma la. dama ni seen non dama ni. kaymaa yi nekk fee. dama ni gisuma ko. dundoo ko mais sa yow yaa ngi fexee gisuma ko di waaw. yaa ngi fexee jour damay xëy di. du matin au soir yaa fa fa ngay yendu. ah léeg-léeg ma yendu léeg-léeg yendu xam nga ñun suñu suñu liggéey moom. amul heure amul jour. waaw yéen freelance ngeen def quelque part amul heure amul jour. mais est-ce boo fa doon xiir na fee tamit <laughs> waaw mais dama ci taxaw mais kon yow ba léegi yaa ngi ko ne jàngale wala bàyyi nga jàngale waaw euh, xam nga nag jàngale moom man duma ko bàyyi fas ma ko yéene bàyyi sama dund mais pour le moment da nga pause parce que c'est incompatible un peu waaw temps yi moom jàngale wu ma moom. Mm-hmm. waaw temps yi jàng mais jàngale moom ma ko mais raison bi mooy parce que c'est un peu incompatible ak euh, li nga nekk wala. Euh, non c'est pas ah. incompatible. émission yi tamit euh, bu neex boobu tout à l'heure boo ko doon def. Mm. Ah, les les di jàkkaarloo ak jàkkaarloo bi fii vraiment neexoon na ba dee nag mm. léeg-léeg sax nga xaw a faraj faraj faraj tuuti jàkkaarloo. d'accord donc waaw waaw jàkkaarloo yëpp di leen ziar ah, samay wóor rek. fa nekk vraiment waaw je sais je sais tutela ñoo fa nekk ah, mais donc tutela boobu donc c'était c'était super nice moi moi j'aimais beaucoup. waaw équipe tutela yëpp di leen ziar. waaw non ah. moi moi j'aimais beaucoup ah j'étais j'étais vraiment fan de, de cette émission là merci. et puis de, de comme de toutes euh, celles merci. que tu as présentées jusqu'ici euh, mais mais gis naa ne tutela amatul gis naa tamit ne euh, am na benn booy def euh, comme nii ajjuma bu guddi gi mais boobu c'est plutôt sociétal boobu dañuy donc les gens ne parlent plus de politique choix la wala ah, wala surtout dañuy wax politique. non mais mais je veux dire invité too maanaam seetaan naa deux ou trois numéros. waaw parce dafa xaw guddee nag quand même. ñu la yóbbu te yow prime nga naan def yow di dóor kii jàkkaarloo gars yi. làkk la noonu ci. Euh, ci pourtant gis nga émission bi ma gën a xamee Sénégal ca kanam. boobu xam nga ban heure la doon jàll ay sëb. 10 hmm. heures si suba. mais boobu xam nga lu ma bokkul. mais boobu foofu nga doon demee boobu at yi moo dafa succès bi. ah mais bi nga xam bi da nga ñëw ñu grand place ñu tegal si salon ak yooyu nga ñëw toog dégg jox kii kàddu kee tontu jox kii kee tontu donc euh, voilà bokk la leen. Ah, waaw loolu dëgg la léegi euh, foofu damay delloo njukkal euh, sama wëlëre ba mu fay liggéeyandoo Fatou Niang moom mooy tànn thème yi. tànn invité yi. mais dafa toog ko mi nga def avant di invité ay ay kii ñoo xam ne nii ay acteurs politiques yooyu. pas euh, parce que mosuma gis nga invité ay ay leader ak yooyu leader politique nga invité les machins. et puis parce que boo xoolee man samay émission li ëpp politicien du si ñëw. du mm. li ëpp. pourquoi ñeme woo leen moo tax. non parce que wala wala ñi ñee ñooy mën a fréquent parce que gis naa ne yow Tunkara yow ñële ñee ñee nga a ñeme ñi nga xam ne nii euh, euh, kenn kii dañu bëgg ñëw si télé beeg yooyu ñooñu ñooñu moom da ngay da ngay dem à fond la caisse mais ñee. mooy ñan ñoom comme ñan. non je sais pas ba ñu ngay woo rek. ñoom souvent nga xam ne dama xamul dama surtout dama ne Tounkara fa lay defee castingam <laughs> ñooñu. ñooñu moom vraiment <laughs> tu es à fond quoi mais <laughs> booy invité yee ñële ñooñu euh, voilà. non non man d'habitude sama émission man politiciens yi intéressé wuñu ma. Hmm. man nëbbuma ko. Euh, parce que ñëw jéem a jëf sa promotion politique wala ñëw xalamal président tàgg président man néew ma si yooyu. vraiment. Euh, foofu Aïssatou parenthèse rek mooy président de la république man dama jàpp ni ñun 2020 gi ñu nekk. dootul jamono ay xalamal président ay tagg maamam. mais yow temps yaa ngi temps yi nag yaa ngi xalamal nag. Hmm. temps yi moom yaa ngi riiti moom. lan laa wax. temps yi moom yaa ngi riiti moom. comme lan waxal. non temps jox ma exemple ay non mais yow bëgg na xam nga sax yaa ngi may sama kii bi yaa ngi koy yàq sama <laughs> yaa ngi koy yàq mais. mais nee naa la man gëmuma loolu. man du ma def lu ma gëmul man dama gëm ni communication président ak communication gouvernement mm. du affaire ay éloge ay tagg mm. sa maama rayoon gaynde gi sa mm. nijaay tégal bukki bi pour man président soxlawul loolu président lu mu soxla mooy nañu wax liggéey bi lan la ak résultat yi lan la ay sut moom may la dara man président man nëbbu ma ni man affaire troisième mandat bi di nga si ñëwaat léegi mais man du man maa ko xelal de mais bokk naa si ñu ko xelal ni ko président loolu kenn du ko fi wax ku ko fi wax nga daax ko. ah waaw. man bokk naa si ñu ko xelal. ah bon parce que waaw. ah waay waay waay waay Tunkara bi moom Tunkara c'est quoi cette métamorphose là. lan ah, nga waxaloo ko ah. li ko. Ah. président li mu wax. man dama ko ko bind ba mu leer. li mu wax 31 décembre. président su ne candidat la. campagne am si bés boobu lay tàmbali. coow li ne course réew mi. Mm. su nee du candidat ñi bëgg nekk candidat yëpp seen campagne tàmbali. Mm. ministre bi mm. galgal kële. bloqué euh, dossier kii. padd kële. kon juróomi at réew mi yëpp nekk ci campagne. mais Sénégal mooy perte. ma ni président loolu monsieur le président ku ko fi wax na nga ko man président. man sama calcul. Hmm. waroon na daax au moins ñeenti nit. kan no xam nga daax na ñaar. li ko wax euh, waaw ak ak Sori Kabaar. waaw. léegi nag. des na ñaar bu gazeli. ah non xaw ma dama ni léegi. mais mais yeneen ñaari kan la ko. képp ku waane. Hmm. wala xolli gunóor. Hmm. di si dugaat. président dina daax. non nëbbu ko. mais avant la woon li nga wax ni avant la woon parce que léegi moom fi ñu toll nii moom moom moom moom euh, dafa doon dafa génnoon ba tontu léegi mi ngi génne de. ah Cissé Lo de recevoir na Cissé Lo Moussa Diakhaté xam naa semaine prochaine mu recevoir ko. waaw ah, d'accord mais xam nga ñooñu ñëpp ay waa këram lañ. Ah, ñoom Sori dama xam naa léegi ñu Sori moom dafa teel wax moo tax ñu teel ko dàq. ah mais bul wax président dafa ni waa këram. Ah, bu leen wax bàyyi leen ñoom Aïssatou Diop Fall. ñoom journaliste yi. waaw ñun ñu bëj bëj. ñoom ñooñu mun nañ si wax ba géex. mais yéen noppi leen. mais yéen non non man seen xamatu nga fa laa a mooy nga ni président dafa ne bu leen wax ci troisième mandat. Hmm. mais ni c'est-à-dire il ne faut pas du tout pas euh, ñii parce que moom ñu ma dàq ñëpp mooy ñu ne munu ko nekk ñu ne mënul am troisième mandat mais ñeneen mën na ko am dàq leen. non parce que. mais xam nga léegi perspective bi day changé ay sa. ndax la. parce que bu fekkee yow danga nga ni mooy li ma la doon wax sànq boo nee président moom léegi du def troisième mandat. Hmm. président ne d'accord du ma def troisième mandat. Hmm. ñi bëgg nekk candidat yëpp bés boobu la ñuy tàmbalee. mais mais mais mais kooku c'est super faible comme comme argument ça. Ah, bu la neexee non parce que parce que Macky Sall pourquoi muy jël ay nit euh, ñoo xam ne ñooñu dugg de la loyauté. Euh, euh, de le patriotisme ak tamit quelque part de voilà de leur sens de responsabilité c'est-à-dire mooy ñi moom ñi mu wër ñëpp ñi mu nommé ñëpp ministre comme DG comme nangam ñooñu ñëpp ils n'ont qu'une seule idée en tête c'est de le remplacer euh, sur le fauteuil ah non mais li nga wax parce que bu fekkee ne da ne da nga ne moom bu bu bu dee du nekk candidat wala candidat la campagne ubbi waaw waaw loolu mooy kon kon kay c'est encore gouré de casting. non mooy mooy ñi mu jël. Euh, loolu mooy non li ma wax. war leen woon jël. non de li ma wax mooy. li nga wax noonu Tunkara baaxul. li ma wax mooy. su ne du candidat. Hmm. ñi bëgg nekk candidat laa la wax. waaw léegi léegi bu nee bu nee laa nag. moom si boppam. waaw bu nee candidat laa. moom si boppam. waaw campagne am bu nee bu nee du ma nekk candidat. ñi bëgg nekk candidat. seen campagne tàmbali. waaw différence bi anamu. campagne de du jeex si réew mi. waaw mais attends mais campagne de. président loolu lay bañ. non non non mais président président. Mm. man li ma ko wax. Mm. mooy. Mm. président nit ñi ñiy liggéey ak yow si ñaar la ñu war a communiquer. liggéey ak résultat. non c'est que man Tounkara yow Tounkara léegi yaa ngi APR wala da nga jël carte APR. non. looy xaar pour jël ko. ah lu tax. non damay laaj looy xaar non parce que man bokkuma si ay parti politique. mais nii nii nii yow doo jël doo jël carte APR. parce que yow li ngay wax ni waa APR sax waxuñu ko ah ñu am carte APR. di xëy seen seen si loolu laa gëm Aïssatou. non parce que yow fi ñu. yow dama nangul li ma gëm Aïssatou. non Tounkara fi nii yow da ngaa change mais vraiment 1000 euh, euh, pour cent nga change. mooy léegi yow Aïssatou. mënoo ma nangul li ma gëm non ma bëgg xam est-ce que ça c'est le vrai Tounkara que ñun avant da ñu doon nax kon kon ba ngay ba ngay ba ngay dóoraat télé yi da nga doon naxaate kon lii mooy vrai Tounkara bi mooy fi ni yow daal Macky daal lépp waaw déggoo ma la man maa ko xelal nga ni ma lépp waaw ay sa bul jaaxase li mais mais ma li nga xelal dafa baaxul waaw pour yow baaxul mm. nangul naa la ni pour ñu baaxul kat pour ñu bëri baaxul nangul naa leen waaw waa nañ ma nangul ne pour man baax na <laughs> wala ay sët. xalaat <laughs> ah, léegi léegi léegi léegi léegi léegi foofu foofu euh, li ma li ma jeexal parce que anticipé da nga anticipé ci troisième mandat léegi euh, euh, kon yow façon yéen a wax yow mandat bi bii mooy dernier wala du dernier nangam. doo man ma xelal président doo ci wax. non man ah, xelal président. mu ku loolu. Ah. débat boobu. kenn mënu ko fee nangu lu tax. Hmm. parce que moom président dafa koy ñàkkal xorom. mu ngi koy soo a fal beneen mooy. réew mi dafay nekk ci campagne pendant cinq ans. d' accord léegi Sénégal mënu ko Sénégal anti supporté wu ko. d' accord naa léegi léegi yow ba nga déggee euh, euh, Cheikh Yérim Seck di wax ne euh, président Macky Sall comme par hasard je ne veux pas parler de fétichisme de chiffre yow wax nga léegi quatre si Cheikh Yérim tamit wax na fii évidemment bokkul nee na président Macky Sall bii mooy dernier mandat Euh, lu ñëpp jàpp yow sax au fond jàpp nga ko may xam naa bëggoo ci communiquer euh, et que euh, contrairement ak li ma ki wax ne amul dauphin ben il en a bel bien et que du génn jox na benn shortlist de quatre personnes yow dégg nga ko mhm. waaw léegi Cheikh mi wax noonu looloo ci xalaat. xalaatam la am na si droit. yow amoo xalaat si xalaatu si Cheikh xalaatu jàmbur. doo hmm, ci xalaat yow. xalaatu jàmbur doo ci commenté. mais président nee na ñoom Cheikh Yérim ñoom Aïssatou Diop Fall. Hmm, nañ wax lu leen neex. mën nañ wax ba géex. kon yow lu président wax nga wax lu mu wax lu waxoo. loolu la yaa ko wax na vraiment.